gannaaw bu ñu beralee nuyoo ministre de la santé ministre de l'intérieur ministre de la culture nuyu euh, ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci transport transporteur chauffeur ak ñëpp ñu aju ci loolu exploitant gaaru routière yi ñu ngi am mbégte di dajawaat ak yéen pour waxtaan ci li nga xam ne xew na ci Sénégal xam ngeen ne feebar bi bi mu amee ci Sénégal ñu bari li ñu jàppoon mooy transport moom ak ni mu mel ci Sénégal ah boo moytul bu dawee rek musibaam moo tax mesure yi ñu jëloon ci instruction président de la république mooy mesure yoo xam ne daf ñuy permettre ñu endiguer feebar bi ba nga xam ne feebar bi du jaar ci transport pour law si dëkk bi ñu ngi sant yàlla nag parce que tey mesure yooyu ñu jël ci ndigalu président de la république moo ñu may tey feebar bi xam nañu ne am na fu mu toog ci Sénégal lawul si biir dëkk bi ci ñetti région presque la nekk pour l'essentiel mooy région de Dakar de Diourbel ak région de Thiès loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax te xam naa ne mesures yi ñu jël wax dëgg yàlla contribuer na bu baax a baax a baax a baax ci loolu nga xam ne mooy endiguement wu feebar bi mesures yooyu nag moo koy rappeler mooy d'abord si nombre de places yi nga xam ne moo nekkoon si oto yi transport urbain ku nekk xam na ne dañ doon def ay places debout loolu dañ ko supprimer d'abord dañu commencé woon ne benn oto du yëpp plus de la ci ci ci ci nombre de place autorisées bi ñu demee ba ci kanam ñu assouplir ko ne léegi place assise ngay yëpp xam nañu ne transport interurbain dañ ko arrêté woon aussi moo tax transport boobu dawul mais waxoon nañu aussi dañuy respecter les règles d'hygiène maanaam li nga xam ne ministère de la santé digle na ko ci catal loxo yi catal comportement yi catal yére yi catal toogin yi loolu aussi waxoon nañu dañ ko def ci transport port du masque obligatoire ci sunu arrêté yi njëkk jël lañ ko wax ci en tout cas pour le personnel de de de transport donc loolu aussi Euh, ministère de la de l'intérieur confirmer ko ci transport en commun arrêté boobu aussi dafay continuer di law waxoon nañ aussi que ci taxi yi ak transport en commun ni ñu fa war a nekke maanaam taxi yi nga xam ne cinq place la ñuy def wala véhicule particulier yi nga xam ne cinq place la ñuy def dañ ne woon trois mujj gi ñu yóbbuwaat ko ba quatre y compris euh, conducteur bi ñu arrêté woon mesure euh, euh, euh, oto yi ngay tuddee Jakarta maanaam deux yi dañu arrêté woon seen circulation ci ginnaaw bi indiwaat nañu mesure d'assouplissement ba deux roues yi commencé di daw. waxoon nañ aussi te loolu aussi dañ koy maintenir mooy auto transport buy daw wax dëgg boo dawee ba ngoon da ngay arrêté nga raxas sa oto raxas ko ci biir raxas ko ci biti. particulièrement nag ci biir parce que ci biir si la nit ñi di nekk dafa am ay parti yu bare bare yoo xam ne loxo daf fay dem loolu dañ ko war a raxas désinfectant ak ay produits yi nga xam ne mooy les produit appropriés waxoon nañ leen ko mesure boobu aussi dañu koy dañu koy maintenir mesure yooyu yëpp indi na nag wax dëgg yàlla nag jeexital bu rafet ci li nga xam ne moom la ñuy xeex moo tax tey bi président jëlee message à la nation le 11 mai ne dañu war a ubbi transport dañu war a ubbi dëkk bi dañu war a reprendre les activités économiques ñun ci suñu ministère ca bés yooyu la ñu commencé waxtaan nan la ñuy ubbee accompagner li nga xam ne mooy reprise économiques et sociale des activités économiques et sociales donc loolu aussi def nañu ko euh, waxtaan ak sunu euh, euh, direction yi ba nga xam ne déjà commencé woon nañu am ñaari plan de reprise benn bi mooy plan de reprise bi nga xam ne dañu koy def ci Euh, service technique interne yi au ministère mooy fépp foo xam ne dañu fay def contrôle technique di fa def carte grise di def permis nga xam ne en mars dañ ko arrêté woon loolu commencé woon nañ ci waxtaan ba am benn plan validé boo xam ne plan de reprise boobu mettre nañ ko en œuvre xam nga nag kon bu ñu ubbee service technique de transport mooy dañuy ubbi transport euh, plan boobu aussi de reprise waxtaanee nañ ko ba démb si conseil de ministre bi ñu ci waxtaan ak président président jox ñu ci ndigal moo tax ñu koy doxal tey tey rencontré nañu acteur yi euh, avec le ministre de l'intérieur ngoon dinañ gën a xóotal rencontre boobu parce que am na ay mesures complémentaires yu ñu jël balaa ñu koy jël président nee na nañu def plan de reprise concerté ñu waxtaan ak acteurs yi pour que loolu mën a nekk mais d'ores et déjà mën nañu noter que ne dañuy jàpp ne war nañu mën a ubbi reprendre les les activités de transport interurbain à partir de dimanche mais loolu ministre de l'intérieur dina jël ndogal bi na jël arrêté bi. su ko jëlee nag ñun dañ ko war a lëkkalaay ak yeneen mesures yoo xam ne day tax même bu ñuy reprendre dañuy reprendre ci sago reprendre ci prudence reprendre en tenant compte que feebar bi mu ngi fi te feebar warul jaar ci transport warul jaar ci personnel de transport warul jaar ci usager pour law ci Sénégal donc loolu moo tax d'ores et déjà dañu ne kuy dem ak dikk ci gare routière nga war dem ñaari gaaru routière lañu xam ci région de Dakar yoo xam ne ni mooy nekk les gares routières officielles pour le transport interurbain mooy gaaru routière boo maraîcher yu dakaar ak gare routière bu Rufisque ñaari gares yooyu ñoom ñoo officiel mais xam nañ ne am na pratique bu am ci biir transport mooy lu ñu tuddee les horaires dañuy am ci quartier yi mooy transport de proximité yooyu aussi dañ ko identifier ak les acteurs ba nga xam ne tey du fooy taxaw rek bu war a dem Thiès wala Saint-Louis wala Diourbel fu la oto fekk nga dugg fa déedéet donc gare yooyu nga xam ne c'est des horaires ak gare officielle yi ma wax nii léegi dinañ ci waxtaan tënk ko ci kayit ba ministère de l'intérieur xam ak ministère de forces armées que léegi fii moo nekk point de départ fii tamit moo nekk point d'arrivée nga xam ne kuy dugg ci oto dinañ la xam dinañ la identifier loolu mooy manifeste am sa numéro téléphone am sa personne contact boo xam ne nii bu jëyee amee wala musiba wala information bu indispensable ci kooku la ñuy jaar pour wax ko donc loolu aussi gaaru ceer yi war nañu sàmmonteeg moom bu baax a baax a baax transporteurs yi aussi mooy ñi nga xam ne ay de transport interurbain wax nañ leen d' abord personnel bi ni ñu war a taxawee arrêté boobu mu ngi fi ba léegi jógewu fi mooy port du masque euh, gel yi ñu war a am di d'hygiène yi nga xam ne war nañ ko observer donc loolu aussi ba léegi dañu koy sàmmante ak moom voyageurs yi ben bu vraiment dara justifié wul légitimé wul nga war a jóg dugg transport en commun maanaam soxla bi nekkul farata wax dëgg yàlla ñaan nañ leen depuis ca njalbeen ne leen moytu leen moyen de transport en commun rawatina nag ki nga xam ne mu ngi nemmeeku ci yaramam loo xam ne nii ministère de la santé jàpp na ne lii mën na nekk signal signalement ci feebar bi loolu tamit defe naa Sénégal yëpp xam nañ ko donc loolu ñu ngi leen koy ñaan waaye bu ñuy dem nañu xam ne dañu am ay matuwaay yoo xam ne jël nañ ko mooy képp kuy dugg ci auto transport public faaw ñu jël nag sa température balaa ngay yëg faaw ñu jël aussi say filiation ak sa numéro de téléphone balaa ngay dugg ci transport bi. loolu yëpp nag tey ci ngoon à 17 dinañ ko waxtaanee ak acteurs pour gën a xóotal dinañ ñëwaat encore ci sénégalais yi gën leen wax dans les détails près plan de reprise boobu nan la tëddee mais déjà président de la république yombal na ci lu bari pour bi maanaam démb ci conseil des ministres. dafa jël enveloppe 3 milliards de francs CFA yokk ko si li nga xam ne jagle woon na ko acteur transport yi loolu nag ñu ngi ko si sant di ko gërëm bu baax te dina yombal yëf parce que enveloppe bi mu ngi nekkoon si ñaari milliards ak 750 millions de francs CFA maanaam euh, milliard bu manqué juróom fukki million léegi enveloppe boobu mu ngi dem ci 8 milliards 250 millions de francs fa en grande masse transport interurbain mu ngi ci am 1 milliard 800 AFTU mu ngi ci am 2 milliards 300 Dakar Dem Dikk mu ngi ci am 2 milliards 450 taxi yi ñu ngi ci am 450 millions gare routière ak euh, ñu ngi ci am 600 millions Ndiaga Ndiaye ak car yi ñu ngi ci am 300 millions auto école yi ñu ngi ci am 150 millions moto Jakarta yi ñu ngi ci am 450 millions jël nañ aussi 150 millions boo xam ne pour ñu mën a jënd ay produits ak ay masques. yoo xam ne nii ak ci gaaru ceer yi loolu ñu wax ne faaw mu mën mënta dina mën a jàppandal en tout cas ñu ngi ci pour terminer gannaaw bu ñu gërëmee ministre de l'intérieur ci li nga xam ne taxawaay la ko def ak ministère de la de de des forces armées ci li nga xam dañuy accompagner les services de transport ak de la santé rafetlu taxawaayu agent de santé yëpp ñu ngi wax ne plan boobu de reprise ñu ngi koy amal tey waxtaan bu soobee yàlla bu waxtaan bi jàppandalee dimanche incha allah transport interurbain dina ubbi leneen liñ ci yokk nag mooy que ne xam nañu ne sunu secteur bi moom euh, dafa nekk secteur bu ñu impacté bu méttee métti maladie bi dafa jaar euh, am lu yàqu-yàqu yu bari yoo xam ne def na ko ci secteur bi waaye tarewul malgré difficulté yi mu am ay doomu Sénégal yoo xam ne ñoom ñooy les investisseurs dans le transport ñooy jël seen xaalis jënd matériel ñoom ñooy jël ay emploi di leen fay waa dëgg yàlla terewul malgré métti métti yi ak restriction yi dañu continuer di assurer le service public de transport avec dignité et courage loolu nag war nañu leen a kañ bu baax rafetlu seen taxawaay gërëm leen ci sant leen ci waaye am na ñeneen ñoo xam ne dañuy def naqasadul noonu que am na ñoo xam ne barka démb def nañu ay arrêt de travail yemuñu ca euh, arrêté wuñu seen liggéey dañu dem ci ay carrefour wala ci ay yoon def ay yàq au nom de syndicalisme loolu nag dañ koy ñaawlu bu baax a baax a baax ah tey am yaakaar ne comme dëkku droit la ñu nekk responsabilité dinañ ko situer ah sanction yee ca war dinañu ko indi en tout cas ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne xam naa restez chez slogan la bu ñuy xoolaat léegi dañuy wax restons vigilants ah ñu xam ne feebar bi mu ngi fi ah, ñu xam ko ci biir marché yi xam ko ci biir moyen de transport yi indi nag comportement de responsable xam ne loolu lañu ñu war a def pour mën a gën a xeex feebar bi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah